am di waaw le 16 mai incha allah rabbi euh, pour dafa am doxum ñaxtu boo xam ni pour ñëpp jóg bépp jullit boo xam ne yàlla yitteel na la pour oustaz Mame Gor Ndiaye man mii di wax ak yéen nag ginnaaw bañ ko seedalee yàlla borom bi subhaanahu wa taala euh, jël nañ sunu weccet donte néew na ñu def ko ci pour soutenir ko ndax ñu ngi koy laajteel xaalis bokk nañ ci ñu génn suñu xaalis joxeel ko bokk ci ñi am di ko waxal ngir jëmee yàlla borom bi subhaanahu wa yàlla nañ ko yàlla nangul mais mbokk sénégalais yi lii nii nga xam ne mi ngi am ci dëkk bi damaa dégg ñu may wax comme ay affaire maanaam sarti réew mi ni mu tëdd ni muy tëddee comme xaw ma démocrate xaw ma laïc xaw ma lan ni ñu ko expliqué ba bàyyi loolu ni ko expliqué mooy comme ça réew mi ku ci nekk am nga droit nga indi sa gis-gis nga indi say xalaat nga am say position may nañ la ko may nañ ko ko ci nekk ci réew mi waa man loolu dama ko déglee ay ree daf maa jàpp ci Sénégal loi yooyu ñi ko njëkk a jalgati ñi ko njëkk a xàtt sa sàrt réew mi mooy ñuy tudde ay sëriñ ñi ma ciy jiital mooy waa laayeen yi du ci jiital waa kër limaamu laay bu nu taxawee ñu wax ñu ne kii moom yenante la comme Isa xaw ma xaw ma Isa laay xaw ma kan yonente la xaw ma Mamadou laay xaw ma nu mu seen sëriñ boobu ñu ne yonente la loolu yonente bi sallallahu alayhi moom moo wax ni yonente du ñëw ginnaaw mais léegi da ngeen bëgg a agresser yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ni xadiis yu yonente bu kenn firi bu kenn waa waxi Muhammad sallallahu alayhi wa waxoo leen dëgg Macky Sall gën a la yokk say kaso te nga xam ne nag képp koo xam ni ilimaan la mi ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ko ndax képp kuy ilimaan di jàngale alquran ak na gëm ni waxi Muhammad salaa sallam dëgg la loolu dana ko wax mais lii mooy wàccal suuf si léegi man li may wax mooy yéen fi mu toll nii léegi bu ñi nga xam ne tey ñu ngi leen di woowee ay salafis wala ibaadu wala loo xam ne mën ngeen ko tuddee ndax maam Góor Njaay ci ñuy tudde wahabis ci la bokk léegi fi mu toll tey bu ñu jógoon lan ngeen di wax ci lii ngeen di jaar pour porox tongo pour porondol pour taal dëkk bi ndax yaa ngeen bëgg a taal dëkk bi ci affaire terroriste jiñ ay nit ay terroriste jiñ nit ay taalkatu bomb jiñ nit lu nekk mais léegi après léegi yéen fi ñu toll nii bu nit ñi jógee tey di dox doxum ñaxtu yoo xam ne tey jóg nañ pour yen bokk senegal yi yéen laay waxal bu ñu demee ba jóg di dox doxum ñaxtu léegi dañ naan taalkatu bomb yi gis ngeen waa bi si taalkatu bomb yi maanaam ñëw nañ lii mooy li mës a am ci lislaam ci bépp yàq xetu euh, yàq deru l'islam waaye li Muhammad salaa salaam waxoon barke alquran nit amuloo lu gën l'islam amuloo lu gën sa diine li yentu saas ne l'islam mi ngi tàmbalee ci tumuranke day delluwaat ci tumuranke texe ñeen na ñuy tumuranke bu jullit ñi bu na bu xatal nañ leen ba nu génn seen dëkk gàddaay dem Madina mais xanaa senegal da ngeen bëgg nit ñi gàddaay Sénégal ku dul fii li ngeen bëgg a dégg mooy Serigne Touba la li ngeen bëgg a dégg mooy El Hadj Malick la yàlla la li ngeen bëgg a dégg mooy Baye Niass yàlla li ngeen bëgg a dégg ay yeneen bari mais yéen nan la mën a nekkee même bu dul dara lu logique xel nan la mën a nekkee ñu ne Baye Niass yenante la nan la mën a nekkee ñu ne Limam Laye yenante la nan la mën a nekkee ñu ne Sëñ Fallou la te ñoom ñëpp bokkuñu ndey bokkuñu baay mais kan moo ci yenent nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg mbokk sénégalais ay seen yaay caaxaan la mais hadis yi yenn bu ko kenn fii te lu lu neex waaye wax ci tele bi nit toog na fi tudd wanagu yàlla ci télé bi portuñ ko pelante ana kan mooy portul pelante yàlla ak yenentam belee sa jullit ñi chaque jour yéen ngi wax lu belee sa jullit ñi barki démb maa ngi gis kuy def fii ay ñaan ñaani ay xuma lan lay tudd billaahi ay awra awra yooyu mu naan day ñaan naan wax leen amiin amin awra tudd awra ni awra sàngam wax leen amin awra subhanallah mais loolu lépp am ci dëkk bi ci ñoo xam ni am ñoo xam ni lu nekk ñu yàq ko ci salaa salaam barki démb am na laay bu ma teg fii am na am na am na am na benn benn vidéo bu ma teg fii ngeen dégg waa ji li mu wax ne yonent bi ci xuntu ba lu gën a ñaaw dafa am ba yonent bi salaa salaam kuntu ba ba mu fa demee moo ko ëpp ndax yonent bi dafa dafa dem ci kuntu ba pour làqatu pour daw sëñ Touba musul daw dafa ragal yonent bi dafa ragal dee mu ne saxaaba yonent bi salaa salaam àndandoo sëñ Touba ñoo gën saxaaba yonent bi salaa salaam ndax lii dëgg la ndax lii diine ne ku fi ne yàlla nee na ñu jël jaasi ne dañuy toj sa kër ku fi ne yonent nee na ñu ne dañuy toj sa kër ku fi wax Bamba yàlla ngeen ne eskay ku fi ne Maodo yàlla ngeen ne eskay mais lan ngeen bëgg mbokk sénégalais yi man nag sama wax nag waxuma comme ni ma leen ko waxee rek waxee ma pour ay wahabis waxee ma pour kenn samay wax la yoo xam ni dañuy jàpp ay doomarama aadama di leen tëj ci lu dul dëgg ma ñëw wax mais seen lii du benn dëgg du yoon wallaahi du yoon ak réew moo xam ne fi mu nii ñi nga xam ne ñooy kilifa ñoo waroon delloo nit ñi ci yàlla ñoom tey ñoo fi toog bu ñuy saaga lislaam ñi ngi saaga lislaam ci seen tur doomu sëñ Sidi Mbàkke bi wax naa leen ko toog na fii di tudd duusu yàlla wanagu yàlla subhaanallah ku fi tudd wanagu sëñ Tuubaa ngeen rey ku fi tudd yàlla wanagu Alaaji Maalik ngeen rey ku fi tudd wanagu Baay Ñas ngeen dafa fi tudd wanagu yàlla dara la ci fekk demal ci marché bi nga taxaw nga saaga yàlla dara du fekk nga saaga yent saasam dara du la ci fekk nga saaga sëñ Tuubaa ñu rey la nga saaga Alaaji Maalik sa ndax saaga weesuwul ngay tudd wanagu yàlla dama ni wanagu Sëriñ Bàmba ku ko tudd ngeen saaga ndayam nañ waxante dëgg ku fi tudd wanagu Cheikh Ahmadou Bamba ne am na wanag ngeen rey ko ku fi tudd wanagu El Hadj Malick ngeen rey ko ku fi tudd wanagu Baay Ñas ngeen rey ko ku fi tudd wanagu seen mag yi ñuy tudd te ñoom ñoo am wanag ñoom ñooy dem duus yàlla du dem duus ngeen rey ko mais yéen ban diine ngeen yor ban dëkk ngeen yor Macky sàll waxuloo dëgg bu fekkee da nga ne dang nga fiy tere nit ñi ci kàddu comme li nga xamante si nga ànd ak sa sëriñ escro yooyu yow yaa gën a xam ne ñi ñi ngay ñi ngay kii sëriñ si gëmoo leen yow mag wallaahi gëmuloo sëriñ si wallaahi gëmuloo sëriñ si yow yaa gën a xam si yéen ak ñoom yéen a ànd bokk sareexe askan wi looloo tax pour rek ay nit di la votel mais tax na xamal ni yàlla borom si la nga amal affaire jàpp nit porte jàpp nit tëj nii maam góor yaay dama ko xam dama ko xam mais li muy wax kii yenante la moom du tudd sax ay tur bu doon sax nit ku tudd tur sax ñu ne waa sax wala lenn nañ waxante dëgg koo xam ne toog di jàngale yor daaraam te daaraam ji yor di ci di ci di ci di ci góorgóorlu lu mu mën tabax daaraam ne di di jàppale ay xale di di waay wax dëgg yàlla xale bu ndaw jeune boo xam ne Sénégal genre jeunes yi lan soxla jeunes yu mel billahi dama ko xam maa ko mag maa ko mag xëj na affaire oustaz lii lii li ngeen di dégg affaire mais xale bu ndaw la xale bu ndaw bàyyi léppam di di dund ci alxuraan ak sunna du saaga du wax wax ju ñaaw di jàng diineem Sénégal soxla ñooñu képp ku baax na ngeen bëgg ñëw tëj te sëriñ si ku leen dàq tappale dafa am ma ni la fen weesuwul ngeen di digaate ay àjjana ay kër àjjana waxoo leen benn dëgg ku fi ku fi naan loo xam ne Muhammad sallallahu alayhi amu ko ci yéen ñan ngeen yàpp dañ waxante dëgg moo tax nag seen dëkk bii nag ni muy demee nii nag bu fekkee yaakaar ngeen di ngeen am ndam barki alxuraan ndax ngeen seen bopp dëkk boo xamante ni sii ñi nga xam ñoo am doole ñooy jàpp ay nit di tëj waxatuma yàlla ngeen di xeexal yéen yàlla ngeen di geeral ak Muhammad sallallahu alayhi wa li ngeen di def nii wallaahi defoo leen ko bu kenn seen bopp barki alquraanu karim bu dee yaakaar ngeen am ay homme politique yi bu baax billaahi wallaahi waxoo leen dëgg billaahi wax ndax dëkk naa fekk la nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg fii képp ku fi ne yàlla nee na yéen saasam nee na yéen ñiy woote waa ay patriote sax ñoo njëkk yéen jaroo leen xeexal billaahi man képp koo xam ne nee nga da ngay góorgóorlu ci alxuraan nag sunna dama ne la nga jàngale sa diina bàyyi Macky Sall bul fi wax lu la Macky Sall di tëjee bul fi wax gis nga askan wi ku leen xeexaloon tey ba dugg tey ci affaire Macky Sall tey foofu lañ koy jaarale sëriñ si ñoo ñëw comme ni def seen Omar Diagne ñoo ñëw réunion complot la ci suuf tëj la wallaahi te buñ la tëjloo tamit di lay tëjloo ci xam ne raison la ndax yaa saaga président wala daal bu fi kenn toog di wax Macky Sall wow na tooy na bàyyi leen sénégalais xeex seen xeex yéen ñiy góorgóorlu ci alxuraan ak sunna kuñ ci jàpp taalibe yi dañ leen ko yéene ndax seen sëriñ si ñoo leen gënal yàlla ñoo leen gënal yent ñoo leen gënal société ndax xam ngeen ni sëriñ bii dafa dëng sëriñ bi porte parente maam góor njaay kooku jubut man sama tur laay waxee nag waxee ma tur ay ibaadu may xeexalee ñëpp rek guy marisan yaa chrétien yi sax dama leen di loolu laa leen wax pour mu leer naññ ni may waxee léegi noonu laay wax ne mais ak dundug naa feq goo xam ne billaahi jaroo leen xeexal barke alquranu karim képp kuy woote waa alquran ak sunna dama lay wax nga moytu Macky Sall nga moytu ci ay politique bul dugg ci politique sénégalais yi buñ leen di rey di leen daggate ndax sénégalais yi buñ amee duñ sant keneen Serigne Touba la ñuy sant dëkk bi xéewal gi bu kiiwee Serigne Touba moo fi indi xéewal Alaaji Maalik moo fi indi xéewal Baay Ñas moo fi indi xéewal mais yàlla ñu ko fenn ñii yàlla da leen da leen alak dëkk bi du dëkkum ñaar dërëm sëriñ si waroon a jubal sëriñ si wa nga xam ne ñoo waroon toog nangu sàrt réew mi ay sàrt yoo xam ne man ay ay naan ku ci nekk am nga léegi sa gis-gis nga indi ko léegi kenn amu sa gis-gis tey <laughs> limaamu laay taxaw ne yonante la yow nga ne ah man de sama gis-gis mooy waxu yonent bi salaa salaam ay borom xam-xam yu waroo dama ne la yéen ñi may déglu toog leen ci waxuma leen man de waxuma leen Sénégal bu dee yow foo mënta nekk ci dëkk bi ci àdduna bi demal ci benn ilimaan nga laaj ko ne ko ndax yenente dina ñëw ci ginnaaw yéen saasam lan la ci yéen saasam waxu mu wax la teg teg li maam góor njaay wax ngeen ne loolu boo ko kenn wax Sénégal yéen waxoo leen dëgg de barki alquran xeex bi gën a métti mooy xeex ak yàlla yàlla ngeen di xeexal barki alquran bi yéen yéen a ngi yéen a ngi ëppal mais seen zone bëgguñu dégg xaala laa bëgguñu dégg xaala rasul yow wax yéen ci saasam yow sa maam yow xëy suba teel fii ne yenent la mais yent ci saasam ne yenent bu ñëw ci ginnaaw te du yenent yenent bu ñuul kuk ko leen yàpp koo leen yàpp nit ñi yow yow yonent bi wax ci mahdi yu ni muy ñëwee yonent bi salaasam nee na mahdi yu bokkut ak yonent bi salaasam te mahdi yu dàkkantel la te mahdi yu du yonent bi nga ne kii mahdi yu la ba pare ne yonent bi salaasam la koo leen yàpp julli bu jotee doo leen def ay taaya seen julli amul taaya julli bu amul taaya foo ko gisee ngeen bàyyi feqe yonent bi salaasam mais bu leen neexee gëm leen liggéey di gëm ngeen woote seen woote yéen xam mais nit ñi dinañ wax wax yonent bi salaasam ne ah yonent bi na yonent bu ñëw ci ginnaaw loolu daal ñu ne daal bu ko fi kenn waxee waxoo leen benn dëgg lii ngeen di def nii barke alxuraan seen bopp ngeen di alak sama gaay yii ay caaxaan la ngeen dem jàppale ci maam Goor Njaay képp ko am yaa ngi wax a an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullaah sëriñ si ngeen ragal yàlla di jàngal nit ñi diine ngeen ragal yàlla courtier yi ngeen nekk nii di digaate ay ajana wallahi di ngeen àjjana yoo xam ne naan da ngeen di maye ay àjjana àjjana amoo leen àjjana goo leen maye bàyyi leen nit ñi liggéey te ngeen bàyyi ñi ngeen takk ay jaam waaw bàyyi ñi ngeen takk ay jaam bàyyi nit ñi liggéey bàyyi nit ñi uti xaalis àjjana gi ne digge mbokk sénégalais yi képp ku leen di dig àjjana du samay wax de waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba waxu yàlla la képp ku ne am na lu muy may àjjana waxu dëgg loolu dukk me loolu ñu ne bu ko fi kenn wax ndax ay àjjana ngeen di ay mbir ci bàmmeel ñëw puus yàlla puus Muhammad salaa salaam teg fi ñoo xam ni kat gàlla yoo xam ni gàlla yooyu lan lan sàkk sëñ Touba bindul Sénégal sàkkul senegal waxoo leen dëgg Alaaji Malick senegal Sénégal Baye Laal sàkkul Sénégal kenn sàkkul senegal te billaahi wallaahi seen caaxaan di ngeen topp ni di xeex dëgg yàlla gi yéenay torox barki alquranul karim barki alquran yéenay torox barki alquranul karim seen dëkk bi ni muy doxee nii fekk yéen a ngi jël seen niti bon yi jiital leen wallaahi doo leen dem ci alquran kam yàlla da leen di alak moo tax ngeen li ma leen waxeen keroog ngeen mën a am seen zircon seen zircon yooyu léegi nan leen waa kër limaama xeexal seen pétrole ba tubaab ba ñëw kii leen tubaab ba limaam ak ñëpp la boole takk jàmm barki alquran karim seen dëkk bi suuf si loolu ci ji mu nangu yàlla yéen da ngeen a torox li ngeen di def nii seen tooñ gii di tooñ lislaam lislaam ngeen di tooñ lii nag man waxee ma turu kenn waxee ma turu ibaadu pour ma leer naññ waxee ma turu wahabis waxee ma turu kenn turu dëgg te dëgg yàlla borom bi subhana taala moo ko moom liggéey di def nii defoo leen ko kenn ku dul seen bopp barke alquranu karim barki alquranu karim doo leen dem maa leen ko wax billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi doo leen dem wallahi summa wallahi bu ngeen bàyyiwut di ngeen di def ya alquraanu yàlla bi ngeen ne bu ko kenn firi waxi muhammad salaa salaam yenente du ñëw ci ginnaaw yéen salaa salaam loolu waxuma la pelente sax pour teg ko kii sax mais ngeen ñëw fekk ko këram dem jël ko yóbbu ko teg ndax lan makki Sall lii intéressé wu ko Macky Sall seen affaire yi Macky du ci lenn yéen moo tax seen seen seen kii yi maanaam da ngeen demagut yéen a bëgg lii Macky Sall du ci lenn moom intérêt lay xool moom affaire politique lay xool Macky Sall moom li muy xool mooy moom fi mu toll nii nu mu fi nekkalee tubaab bi moo tax nu mu mën a def ba gañee lu mu mën a def ba kii bon na bépp moyen bon na tëj bi mu tëj kii dara safu ko ci moom yoonam safu ko ci mais xam na ni sëriñ si yéen ay taalibe ngeen ba tax na sëriñ si lu leen neex def ba tax na sëriñ lu nu kii lu nu bëgg ñoom dina leen ko defal pour rek ñu sànnil ko ay carte pour rek nitu sëriñ bi ànd ak ñoom nañ dem rek nañ dem rek wa rabbil kaaba si torox ci torox torox tàngar ngeen dëkk waxi yéen yàlla ngeen xeex lislaam gu bir ci fi toog ne Serigne Touba bind moo bind yàlla ci bindu xalatu dara nit dëgg alquranu karim dara nit toog saaga yàlla dara nit toog fii Ahmad Khalifa Niass waxam ji barki démb ni mu réyee waa jul yëpp waa kër limaam ak ñëpp war ko xeex dara safu leen yëngalu leen mais bu ko waxoon ci Maodo ngeen jóg bu ko waxoon ci Bamba ngeen jóg barki alquranul karim seen caaxaani moo leer wallahi seen caaxaari moo der te yàlla ngeen amal affaire kuy xeexal yàlla nag nit koo xam moom dangay ngay wooteel te yàlla suñu borom tax maanaam bu demee ñun bul yaakaar mukk ay nit yi nekk si ginnaaw dëgg yàlla gi maam góor njaay moom macha allah dëgg yàlla gi boo koy leeral nanga leeral dëgg yàlla te yàlla tax nga demee xas xasbunallahu wa ni'mal wakiil te xam ne ki nga àndal kooku mu am doole muy yàlla borom bi subhanahu wa taala li ngeen di demee nii di ko def nii wa rabbil nañ jam rek man de maa ngi wax nii mais sama wax ji du kuréelu ibaadu ma ci yaakaar du kuréelu bu ma ci yaakaar du kuréelu tijaan bu du kenn ku ma ci yaakaar du Serigne Touba du El Hadj du Baye Niass seen maam ya cat ba cat du kenn du maam Adama sax bu ma ci yaakaar ba maam Adama ba ba fu mu jeexee yàlla kotta tax may wax te borom bi subhaanahu wa moo tax may wax moo tax dëgg yàlla moo ko moom soxloo ma seenu ndimbal ku yor sa ndimbal nga bokk ko ci sa ci sa ci sa poqotaan yàlla rek a fi nekk de wa rabbil kaaba wa rabbil kaaba barke alquranu karim man de baay ibrahim wallahi ban koy sànni ca xalu safara ba gëm-gëm boobee mu amoon ah, yàlla sunu borom wax ñu ko muy wàkkilu ci borom santaala man de loolu laa gëm yàlla du naxaate man de dama koo gëm jàpp ni moom rek mën jàpp ni moom mooy sàmm waate mooy aaraate yàlla na nga dee taxul kenn de ba ibrahima ci xalum safara lañ ko sànni xalum safara ga ban ko fa sànnee safara ga nekk ak ak ak sedd man ko man yàlla boobu sàmmoon ibrahim li ngeen ne maam kii yenent la du dëgg du dëgg man ci tur wi laa dama ne leen maam li maamu du benn yenent du dëgg waxuñu benn dëgg du benn dëgg yent salaa salaam moo ko wax te du ma jël waxi yent salaa salaam di ko weccoog ay waxi maam li maamu tappale rek ngeen fi seen caaxaan yooyu muy seen paa yëpp amul ku ma ci kii man samay wax man la concerne waxeewu ma turu kenn bu kenn bu kenn jàpp sama wax ji nag di ko jëmale ci kenn wala nga mere ma sama wax ji tax koo bëggoon jàppale doo ko jàppale waaye dëgg moom la borom bi subhaanahu wa taala moom dëgg waxi yàlla la alalu yàlla la barki alquranul karim barki alquran sama yéene ci senegal man su fekkonte ni ma dee askan wi yëpp dund ngeen am jàmm seen am lekk gu neex lekk gu baax di jàmm yàlla war a bi kaaba ma saraxe seen bopp jaral ngeen ma ko kon yàlla na ma yàlla fay kon sama yéene faale wu ma leen wax ji ku mu metti nga matt sa bakkan tappale mais barke alquran yàlla ngeen amal affaire te dëgg mooy mujj imaam Malik nee a dëgg moom jaru sa ngay yuux wax ko ndànk rek yàlla moo koy tasaare dëgg mooy mujj wa rabbil kaaba waaye leen tappale partagé leen mu yaatu te ngeen jàppale maam góor Njaay képp koo xam ne doon naa fekk jullit nga xaqan nga gëm yàlla ngeen jàppale ko ngeen bañ a fàtte tamit Omar Diagne tamit Cheikh Omar Diagne mi ci ay tappale kase ngeen ko jàppee du leneen ndax seen kii seen luwaay dara ngeen dara ngeen ci gëmul dara dara bëgg jàpp nit ku leen arrangé wul rek ndoor rek la bàyyi leen Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne yéen a ko saraxe ni ngeen ko saraxee noonu ngeen di saraxee keneen rek seen sëriñ si jaral na leen saraxe l'islam jaral na leen saraxe lu ne Cheikh Omar Diagne même la billaahi wallaahi ak ah, Cheikh Omar Diagne Macky Sall du ci lenn laa leen benn moyen la rek boo xam ne kii na ni mu ne ah taalibe yi mere nañ ko sëriñ si suuxlu ko ñu tëjlu ko yéen ko tëjlu te li ngeen ko tëjloo yëpp mooy phobie yi ngeen war ñoo lijjantil seen sëriñ si ñoo gën a dëng ñuy dëng ci Sénégal man nag samay wax laay wax waxee ma turu kuréelu kenn waxee ma turu kenn ñu toon nii daal li ma leen wax mooy Cheikh Omar Diagne yéen a ko saraxe waxoo leen dëgg fenn du affaire góor jigéen yéen wax yooyu ay affaire boo leen jaar la nii rek si jaar nii rek xam nga nekk yi affaire yooyu mais sëriñ si ñoo ko saraxlu li tax ñu saraxlu ko mooy affaire phobie yi war a lijjanti heure bu màggal jotee wala gàmm ngeen dugal seen ay phobie foobee yooyu seen taalibee jox leen ci adiya am na ay sëriñ yoo am sax dañ ciy bokk léegi diil boobu ngeen bañ mu kalaate ay bandi ngeen ay wuyu ngeen léegi nag ngeen ne pourquoi muy dund tudd lool di dingat sëñ Touba sëñ Touba nekkul woon jaaykatu foobee Alaaji Maalik nekkul woon jaaykatu foobee ban fii nekk sax ay foobee sax xewagul waaw ñoom kii wuñu foobee du sëñ Touba du Alaaji Maalik ànd leen ak seen xel foobee yi ñu jàllale ci gàmm yeeg màggali sëriñ Touba fekkewut Alaaji Maalik fekkewut wallaahi affaire bi yëpp loolu la affaire góor jigéen bi dañ ci mën a jaar rek kii noonu politicien bi mu laal ko am na loo xam ne bu nee kii mbaam la bokk na ci sart kii léegi nag loolu kii la xam ngeen ni jàpp ñu tëjuñ ko tëj fii ay ñaata nit a wax Macky Sall golo ana ñaata nit a wax lii ndax xam ngeen ni tëjuñu ko pour loolu ñuy affaire serici la ñoo nekk ci suuf yéen a tëjlu yéen a suuxlu Cheikh Omar Diagne bu leen kenn laal maf gën a bon bi gën a yées mooy seen serici yi barki alquranu karim nañ dem rek nañ bu fekkee sunu wax ji du dëgg moom yàlla nañ torox bu fekkee li ñuy wax nii ci alxuraan ak sunna du dëgg yàlla nañ torox bu fekkee yéen li ngeen di wax du dëgg la wala li ngeen wax ay fen la xëy li ngeen di wax dëgg la ma ne leen kon ku ci ku ci nekk ci fen daal yàlla na torox ñii ci torox ngeen jëm de barke alxuraanu karim fen kàcc rek dajale rek seen sëriñ see gën a dëng waa kër limaam googu xawma ku ñu yow yonent bi salaa salaam wax lim mu wax ci mahdi di mahdi yu dafay xees mahdi bii ñëw ñuul kukk nga ne ah yent bi salaa salaam dañ ne mahdi day xees te seen mahdi yooyu ba nekk yoof dafa ñuul ñu ne la da ngaa dingat maam li maam koo leen yàpp bul fi waxati lool bul fi waxati waxu yent bi salaa salaam mahdi yu bee kii la lébu la mahdi bii naar lay nekk yent bi salaa ne naar lay nekk ngeen ne kii dafa yàpp mahdi yu bee xaw ma ci dem si sa xaw ma ba dëkk lay lay wàcc mahdi bi wàcc si Afrique xam nga te yenn saa sama wax loolu lépp dafa waroo ak Mahdi yu bii bakkan bi daa gudd ma seen Mahdi yu bakkan bi daa tàpp ñuul kukk ni mu këriñ kan ngeen yàpp nga waxu yeeti salaa salaam la léegi ñu ne bu ko fi kenn wax ndax fi mu toll nii dafa contraire te te benn Mahdi boobu nekku fi tamit ay ñaata Mahdi ñoo fi woote yéen ñan ngeen yàpp ñan ngeen yàpp julli yoo xam ne amul ay ay ay amul amul amul amul taaya amul taaya barke alxuraan yàlla ngeen di xeexal loolu maalika te seen dëkk bii yi di seetaan di tëj ay nit di suuxlu ay nit ci alxuraan ak sunna di di suuxlu alquran ak sunna di suuxlu wax nit barki alquran doo leen am ndam doo leen am njiit bu baax billahi lazi laa ilaaha huwa yàlla moo leen ne alak moo tax seen dëkk maam yooyu ngeen gën a yaakaar yéen taalibe yi gën a nekk foofu yéen a gën a sonn dëkk yi nga xam ne ñooñu ngeen gën a jàkk fonk yàlla boo xoolee yàlla wane na ay kéemtaanam foofu tuubaa amul sécurité dëkk bu metti la xiif ba mar ba la fa nekk yëpp koo leen yàpp awoon noonu nga dem Limaamu Laay noonu nga dem dëkk yi Kaolack noonu dëkk yi ngeen di kii yëpp dëkk yooyu ay yàlla nekk dëkk yooyu ñoo gën a toro ñoo gën a Kaolack dëkk bi salte hôpital ya matul dara matul ngeen naan yàlla subhanallah kan ngeen yàpp kan ngeen yàpp yàlla moo leen di alak seen dëkk bi doo leen dem dëkk naa naafiq waa awlu kuufa ngeen yéen ànd ak xeex surtout yéen ibaada yi maa ngi wax ak yéen de bu leen kenn politique loo Macky sàll buy rey askan wi yéen waxal leen yàlla ak yonent bi salaa ndax problème bi mooy bu ngeen jàppalee ñi di xeex ngir ñoom ñu lekk di xeex ngir mbuumu jaam gu dog di xeex ngir kii dañ leen di saraxe barki alxuraan da leen di saraxe ndax ñoom dañ leen bañ yéen dañoo bëgg ngeen tëj dañ leen bàyyi buñ leen jàppee ñu ne a ah, ñii de ay terroriste lan ay kii lañ wallaahi da leen di saraxe te duñ leen xeexal moo tax kon koo xam ne yow da ngay xeexal saw askan di xeex après même te xam ngeen ni Macky Sall soskat la Macky Sall ñëw sosal la ne la kii affaire yi askan wi naan voilà ma nga noona moo tax bépp ibaadu rahman kuy wax ibaadu ci Sénégal combat politique yi bul ci dugg boo ci duggee yaa ngi saraxa sa bopp boo la tëjee da nga kaa mérito bu leen ci toog di xeexal kenn yéen moom wax leen xaala laaw xaala rasul rek faqat jeex na ku leen jàpp ci xaala laaw xaala rasul baax na mais moom bu leen dugg mukk ci combat yi bu leen wax seen xutba bu leen ci wax Macky sàll ndax amoo leen fi benn kàddu tekki leen dara ci dëkk bi sëriñ si ñoo ëpp fuuf kàddu te Sénégal ay bandi lañ bëgg ñu jitee sëriñ si ñoom duñ wax yéen yéen amoo leen loo leen wax yéen bokkoo leen amoo fi baat Sénégal da ngeen ko war a xam yéen ibaadu yi muy sëriñu ibaadoog muy sëriñ ba ca gën a mag ak bu leen dugg ci politique bu leen Macky seen yoon nekku ci Macky Sall barke alquran képp koo xam ne yaa ngi toog di sol tubéy ju gàtt sikkim bu gudd dama ni la di sunnaal dama ni la boo duggee ci politique di wax dara Macky Sall ba ne ràpp ci kaso bi yow yaa saraxe sa bopp ba pare saw askan dañ naan gis nga kii dafa contre Serigne Touba kii dafa contre El Hadj Malick gis nga dafa torox barki yàlla ñoo lay gën a saraxe bokkaalekat nag moom mën naa politique moom bokkaalekat ak koo xam moom jërëjëf sëñ bi lay wax kooku bu kiiwee gars yi dañ koy sotal nga dégg firi diw firi diw ah, kii eh, Cheikh Omar Diagne ab misaal la ci yéen kan ngeen yàpp nañ waxante dëgg Cheikh Omar Diagne misaal la ci yéen Cheikh Omar bu ngeen xoolee jàpp bi ko jàpp ñi koy xeexal mooy ñi doon xeexal Ousmane Sonko ñi koy xeexal mooy ñi doon xeexal Bart Bart kenn jàpp ko kenn jàppul Ousmane Sonko kenn jàppul kii waxuma la kii de kenn jàpp leen mais Cheikh Omar Diagne mi ngi ci kaso ba léegi ñoom ñoo ko suuxlu taalibe yi dëgguwuñ ci moo tax ànd ak taalibe ay yaa ngi ànd ak waa ahlu Kuufa barke alxuraan yaa ngi ànd ak waa gis nga nan waree woon Ousseynou Ousseynou taxaw ca Karbala ànd ak ay nit yu baree baree bare nit ñi naan ko kaay dina la kii après ñu war ko billaahi képp ku gëm alxuraan ak sunna ngay topp ci mbooli politique bii di ci dugg loolu yéen laa koy conseil di leen ko baaxee dama leen bëgg yal leen yàlla sàmm barke alxuraan bu leen dugg ci politique bu leen politique Macky Sall lu mu def seen yoon nekku ci dëkk bi bokkoo leen ci ndax dañ leen dañ leen génne ci dëkk bi ndax gis ngeen lii wax waxu yent saa sam ñu ne ràpp ci kasam ndax lii dëgg la mbokk sénégalais yi ndax lii dëgg la ba pare bu kiiwul fenn affaire yi subhaanallah bu leen bu xeex de xeex